daanaka day problème yoo xam ni ci rapport gouverneur santé nañ ne amatul problème waxatuñu waxi communication parce que opérateur yëpp ñëw nañ liggéey nañ gouverneur mi ngi doon jox compte rendu sapeur pompier sax tudduñ leen santé démb la fi ministre bi jógee benn problème la ci gouverneur pose muy problème mu caisse d'avance bi te laata muy dugg si man mi woo naa ministre bi woo ministre du budget te yaakaar naa ne tey tey tey bu fekkee du ñàkk fii may wax yéen sax réglé nañ ko pare. gannaaw loolu am na ci ay quelques points yu ñu ci posé muy jëm ci wàllu wàllu yoon ni Ageroute indi na ci tontu jàpp na ne lépp li ñu ko wax fii ak màggal gi moom dana ko mën a àggale parce que li mu waroon a def ci biti Touba def na ko ba pare li mu war a def ci biir Touba gannaaw ci biir dëkk bi la dana mën a liggéey guddi ak bëccëg. wàllu ONAS aussi am na lu ñu ci wax ñu soññ leen ñu gën a góorgóorlu fexe ba digg bi ñu waxoon ci nombre de rotation yi ñu war a def non seulement ñu def ko mais ñu tenir aussi en compte préoccupation bi nga xam ne bii mairu Mbàkke wax na ko ci wàllu euh, aménagement bi ñu war a def foofu noonu te weesoogul nag parce que xaj na fi euh, ci wàllu ndox bi aussi. am nañ yaakaar ne ak vingt et un mille mètres cube jour yi yokk ci ndox mi problème mu ndox bi war nañ ko mën a régler du ñàkk am na ci quelques problèmes mais camion yi nga xam ne yi indi nañ ko fii te ren ñu gën a saytu ni ñuy doxee euh, buñ ko xoolee orientation bi yaakaar naa ne euh, sëñ Ousmane danañ mën a am ndox ci bërëb yëpp rawatina ci bërëb yi nga xam ne yii amul ndox c'est vrai que Serigne Cheikh posé na benn problème boo xam ne bii waxoon nañ ko fi aussi daaw xam naa ne peut-être daf ñoo échappé ne waroon nañ ko mën a régler mooy zone yi nga xam ne yii dafa nekk fii te xamul lu tax tuyau mënu fa am kooku peut-être xanaa li ñuy def bu màggal gi passé offort war ci mën a jublu pour que quand ñu jéem ci trouver solution de façon définitive euh, wàllu ordure yi aussi wax nañ ci. également wàllu li nga xam ne lii Senelec waroon na ko def muy ci réseau bi daanaka def na lépp euh, ci éclairage public bi aussi yaakaar naa ne 10 pour cent moo des ci engagement bi nga xam ne bii jëloon nañ ko ci mu yeggale ko également ñu ngi rafetlu aussi taxawaayu meeru Touba ak meeru Mbacké ci ci wàllu woowu kon euh, ci wàllu également. ndox yi taa ci kër yi parce que cité signalé nañ ñu am na ndox bu taa ndaamaatu kër ñang ak fii gannaaw résidence loolu aussi danañ ci jël naa ci disposition pour ñu yokk euh, nombre de rotation yi ñun ñu jël ko en charge euh, pour que euh, foofu aussi ndox mi en tout cas jóge fa mooy suñu yéene fexe ba du leen mën a du leen mën a gàllankoor loolu aussi bu ñu génnee dañ ci jël léegi ak gouverneur ay disposition ay mesures concrètes kon sëriñ bi li nga xam ne lii administration jëloon na ko engagement yaakaar na ne fii ak ñetti fan ñeenti fan dina jeex completement li ci des li nga xam ne lii peut-être day engagement yoo xam ne yi day continuer ndax ci wàllu courant bi am na liggéey boo xam ne bii danañ ko def après ci wàllu ndox mi également loolu aussi danañ ko def xanaa bala ñuy daane suñu kàddu nga ñu sant rek ñi nga xam ne ñi aussi wax dëgg yàlla dugal nañ seen loxo ci lii te it mënoon nañu wax ne nguur mën nañ ko ci xaar comme ni ko sëñ Modou loo waxee léegi nii ndax safinatul amaan ràññee nañ liggéeyam ci ci ci ci liggéey ci màggal gi parce que luñ fi def lu ne gouverneur def ñu rendre compte tuubaa ca kanam aussi gis nañ liggéey bu rafet bi ñu fi liggéey ndax Euh, gouverneur Dieng mi ngi may yónnee bataaxal léegi parce que dafay avancé woon benn chiffre ne 21 millions def nañ ko yónnee waat chiffre ne non du 21 30 la kon loolu aussi baax na nit ñi xam ko dem nañ sax ba ren may nañu ambulance ak euh, camion sapeur pompier kon loolu te loolu lépp ci liggéeyu euh, Touba la jëm ci liggéeyu màggal gi la jëm kon aussi waa Touba ci kanam ñu leen di encouragé. waa maa a rahmati également seen liggéey euh, rafet na donc aussi gis nañ ko ci rawati nañ ko gis ci màggal gi aussi xanaa peut-être di terminer waa Hizbut Tarqiyyah ñoom it gis naa seen implication man personnellement am naa ci bâche boo xam ne bi man maa ko songoon te man ak ñoom ñoo koy liggéey te xam naa bu ñu ma ci jàppale mën naa am du yàgg sëriñ bi kon ñu gërëm leen lool ci ñooñu ak ñeneen ñi nga xam ñi limun leen euh, parce que kenn ku ci nekk au delà de li nguur di def bu fekkee da nga nekk ab taalibe am nga loo war a mën dugalal sa bopp ci organisation màggal gi kon sëñ bi donc loolu moo doon suñuy kàddu xanaa ma delloo la kàddu gi nga ñaan tëjal ñu ñu dellu Ndakaaru jërëjëf ku jóg di màggal li yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital